soxna Mariama Bousso soxna Mariama Bousso ñu gën koo xam ci soxna jaaratullaahi mi ngi gane àdduna ci atum 1833 ci dëkk bu ñuy wax Mbusoobe Jolof Mbusoobe Jolof nag mi ngi ci suuf si di Jolof am na ñeneen nag ñu wax ne soxna jaaratullaahi feeñewul ci dëkk bii di Mbusoobe Jolof waaye ci galoore la feeñe jamono galoore nag mi ngi ci suuf si nag di fuuta foofu nag la maami soxna jaaratullaahi cosaanoo am na nag ñenn ci borom xam-xam yi ñu wax ne ci galoore googu ci fuuta département bu Podor ci région de Matam waaye daal li wér te wér moom soxna Mariama Bousso ci atum 1833 la feeñ jamono mi ngi bokkitim ci njaboot gu ñu respecté wala ci famille bu ñu respecté ñu tudde leen ay tooroode tooroode nag mooy famille boo xam ne ay doomi soxna ñoo ca nekk yi famille bu ñu respecté ci Fuuta ci njaboot googu itam la soxna jaaratullaahi feeñe jamono soxna Mariama Bousso doomu sëriñ Muhammadu Bousso la ñu gënoon koo xam ci sëriñ Ma Bousso ak soxna asta mbàkke naawel moom ma maryaama buso ñu gën koo xam ci soxna jaaratullaahi am na ñu mbokkal soxna asta waalo mbàkke naawel mi ñu ràññee ci ku ñuy wax soxna mati buso bintu soxna asta waalo mbàkke naawel bintu sëriñ muhammadu buso ku ñuy wax sëriñ Bousso bi Bousso ibnu soxna Asta Waalo Mbàkke naawel ibnu sëriñ maa Bousso ñu gën koo xam ci sëriñ Mouhamadou Bousso ak moom soxna jaaratullaahi wala soxna Mariama Bousso bintu soxna Asta Waalo Mbàkke naawel bintu sëriñ Mouhamadou Bousso ñu gën koo xam ci sëriñ maa Bousso soxna Mariama Bousso ñu gën koo xam ci soxna jaaratullaahi ñaar la bokkal waajur wu jigéen ak moom muy ñett muy kenn ku jigéen ak kenn ku góor ñaar ñooñu soxna soxna Asta naawel ak kii di sëriñ Mouhamadou Bousso ñu gën koo xam ci sëriñ Ma Bousso kenn ku jigéen la ak kenn ku góor ak moom muy ñett kenn ku jigéen ki mooy ku ñuy wax soxna Mati Bousso soxna Mati Bousso moomu moo meññ ku ñuy wax sëriñ Ma Lamine Mati Ñang sëriñ Ma Lamine Mati Ñang moo meññ ku ñuy wax sëriñ Baara Ñang sëriñ Baara Ñang moo meññ ku ñuy wax sëriñ dex Ñang sëriñ dex Ñang yaakaar naa ñu bare bare bari xam nañ ko ci yoonu murit wi naga ni daaw rek lañu dëddu yàlla na yàlla yokk ay leeram te ci barkeem wanale kook maamam ja soxna jaaratullaahi sëriñ sa deex ñang noonu nag la bokke woon ak soxna jaaratullaahi ñaareelu doomu soxna asta waalo mbàkke naaweel bi te bokk ak soxna jaaratullaahi benn waajur wu jigéen ak waajur wu góor di sëriñ busoo bi buso moo meññi sëriñ seexu buso mi nekkoon ab taawam sëriñ seexu buso moo meññi sëriñ moo roq ya buso sëriñ moo roq ya buso moo meññi sëriñ na buso mi nekk ab xalifaam jamono ji ba tey sëriñ busoo bi buso moomu nekkoon nijaayu ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim moo meññi mbàkke buso bu gede yaakaar naa moom itam ku ne xam na ko ci yoon wi ba tey it sëriñ buso bi buso moom nekkoon nijaayu ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim te bokk ak soxna jaaratulaay benn waajur wu jigéen moo meññ itam soxna aminta kandi buso soxna aminta kandi buso moom moo meññi cheikh abdou xaadir mbàkke kon ba tey itam cheikh abdou xaadir mbàkke noonu la bokkeek soxna jaaratulaay ndax maamam la laataa seexul xaddim soxna mariama buso ñu gën koo xam ci soxna jaaratulaay bi matee dal alxuraanul karim ci ëttu waajuram di sëriñ muhammadu buso ñu gën gën koo xam ci sëriñ maa buso la dale mokkal alxuraanul karim ndax nekk na ku teel a wattu alxuraanul karim ndax bu leen fàtte ne famille bi mu bokk ay tooroode lañ te famille boobu itam alxuraanul karim ñu koy teel a jàng lañ moo tax soxna jaar bi matee dal alxuraanul karim waajuram sëriñ muhammadu buso ñu gën koo xam ci sëriñ maa buso dalal na ko alxuraanul karim mu nekk nag ku ko teel a wattu moom soxna jaaratullaahi ci ëttu waajuram la jànge alxuraanul karim ba wattu ko mu nekk nag ci loxoy waajuram soxna asta sa waalo mbàkke naawel ba ni matee dem kër bi matee dem kër waajuram sëriñ mohamadu buso ñu gën koo xam ci sëriñ maa buso mamoor anta sali mbàkke la ko joxoon ci dëkk bii di mbàkke bawal mammoor anta sali mbàkke dëkkoo soxna jaaratullaahi ba am na kii soxna jaaratullaahi ak njaboot ñu ràññee ci kim tudde ngeen gi mbindeef sallallahu taala alayhi wa sallam di sëriñ mammoor jaara magi mag ibnu soxna jaaratullaahi ibnu mammoor anta sali mbàkke ak mu tudde jàngaloon di sëriñ ahmadu bamba Sall bu Saalum ñu koy wax Ahmadou Bamba Mbàkke di Sëriñ Tuuba Seexul Xaddiim ibnu soxna jaaratullaahi ibnu Mamor Anta Sali Mbàkke ak kam tudde Sëriñ Abibullaahi Mbàkke bu Xuru Mbàkke ibnu soxna jaaratullaahi ibnu Mamor Anta Sali Mbàkke ak seen jigéen ba soxna Faatimatu bintu Mbàkke bintu soxna jaaratullaahi bintu Mamor Anta Sali Mbàkke kon soxna jaaratullaahi ñeenti bant la am ak Anta Sali Mbàkke ñeenti bant yooyu soxna Mariyaama Buso ñu gën koo xam ci soxna jaaratullaahi am ak Mamor Anta Sali Mbàkke ñoom ñeent ñooñu itam kenn bokk seeg sa morom foo nekk Mamor Jaara mi ñu tudde ngeen gi mbindeef sallallahu taala alayhi wa sallam mi ngi ci wetu nijaayam sëriñ Busoobe Buso ci Mbàkke Bawal sëriñ mi nekkoon rakk ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim mi ngi ci xuru Mbàkke ndax foofu sax la génnee àdduna ci diggante ba fa Mamor Anta Sali Mbàkke defoon ak soxna Jaaratullaahi kon mu ngi foofu ci xuru Mbàkke ñuy ziyaare sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim mi ngi ci dëkk bii di Tuubaa ci dëkk bu mu sancal boppam ñeenteelu doomu soxna jaaratullaahi bi ak ki di mamor anta sali mbàkke di soxna faatu bintu mbàkke bintu soxna jaaratullaahi ak mamor anta sali mbàkke xissa yu baree bari nag tàbbi na ci jëmm jooju ñenn ci boroom xam-xam yi ne nañ fi ko soxna jaaratullaahi tegoon doon am lu muy def bi mu dikkaatee fekku ko fa ñeneen ci boroom xam-xam yi na déedéet soxna faati matu mbàkke kay ay naar ñoo ko këf ndax bu njëkk naar yi nañ def loolu waaye daal li mooy soxna faatimatu mbàkke bintu soxna jaaratullaahi kii di Mamor Anta Sali Mbàkke nekkoon benn doom bu jigéen ci njabootu soxna jaaratullaahi ba nëga ni kenn xamul fan la nekk fam nekk daal yàlla na ko fa yàlla fekk ak ay leer ci darajay magam yi soxna Mariama Buso ñu gën koo xam ci soxna jaaratullaahi ci dëkk bii nag di Mbàkke Bawol la nekkoon nag kiñ ko dénkoon muy Mamor Anta Sali Mbàkke ba tax na taawam bii di Mamor jaaratuñ tudde ko ngën gi mbindéef sallallahu taala alayhi wa sallam fi la feeñe sax lii di jamono Sëriñ Tuubaa feeña jamono ginnaaw bi nag Mamor Anta Sali Mbàkke jóge na ci Mbàkke Bawal dem nag ci dëkk bu ñuy wax njàkkan njàkkan nag mi ngi ci wetu dëkk bii di xuru Mbàkke def na fa ab diir ci dëkk boobu di njàkkan ginnaaw bi nag la ànd tuuti sanc dëkk boobu di xuru Mbàkke nekk fa di liggéey ndax xam ngeen ne doomu soxna yi ñaari daawuñu nangoog dëkk ak yenn niti àdduna yi ndax njaboot gi ñu yor lañuy bañ ñaari jikko yi jaxasoo moo tax dañ daa dem ba jubub dëkk rek sanc ko Mamor Anta Sali Mbàkke jóge ci dëkk boobu di njàkkan dem sanc dëkk bu ko suriwul dara di xuru mbakke nekk faak soxna jaaratullaahi ak njabootam gi dëkk boobu di xuru Mbàkke lu ëpp ci dunduk soxna jaaratullaahi ak Mamor Anta Sali Mbàkke ci dëkk boobu di xuru Mbàkke la ko defee ba tax na itam lu baree baree bari xew na ci dunduk soxna jaaratullaahi ci dëkk boobu di xuru Mbàkke ndax foofu la doomam jooju di sëriñ Abibullaahi Mbàkke génnee àdduna foofu la ko Mamor Anta Sali Mbàkke te loo sàkket wa mu fanaanee tawte ba fajar doomam ji di sëriñ Touba Seexul Xaddim itam lu ëpp ci ak tuut tànkam ci dëkk boobu di xuru Mbàkke la ko defe histoire yu baree baree bari yi ñuy nettali itam ci soxna jaaratullaahi ci dëkk boobu di xuru Mbàkke la amee ba tax na soxna jaaratullaahi soo dindee ak dundam ci xuru Mbàkke li ciy des du bari ndax xuru Mbàkke dong nga mën a dem ñu mën laa wax ne la fii la néeg soxna jaaratullaahi bi tolloon xuru Mbàkke dong itam nga mën a dem ñu mën la wax ne doomu soxna jaaratullaahi bi mi ngi tëdd fii te biñ ko fiy tëral soxna jaaratullaahi fekke na ko mbàkke dong itam nga mën a dem ñu man la wax ne soxna jaaratullaahi teen bi itam root na ci lu ëpp juróom benni at xuru mbàkke googe itam la soxna jaaratullaahi bàyyi ko moom mamor anta sali mbàkke ñu dem wuy ji màbba jaxu ba ci xeex bi mu amaloon ci som xuru mbàkke googe itam lañ la mën a wax ci istuwaaru soxna jaaratullaahi na la bi ko mamor anta sali mbàkke téyeloo sàkket wi ba fajar jot mu yëg ne soxna jaaratullaahi bàyyiwul sàkket wi bii ci guddi ba nëgëni mu sant ko gërëm ko ñaanal ko wax ko wax ju yéeme xuru mbàkke dong nag lañ la mën a waxee ne fa la amee kon soxna jaaratullaahi ak xuru mbàkke lu yaatu la xuru mbàkke googu nag la bàyyi ko mu ànd ànd ak sali mbàkke ñu dem nag ci dëkk bii di poroxaan ngir wuy ji nag màbba jaxu ba ci xeex boobu mu woote woon ci sob ngir fas yéene woon nag jàmmarloog nooni foofu itim la nekk ba nim génnee àdduna moom soxna jaaratullaahi ci atum 1866 la génn àdduna ci dëkk boobu di poroxaan tombee kam àndaloon di mammoor anta sali mbàkke wuy ji woon màbba jaxu ba ci xeex boobu mu woote woon waaye soxna jaaratullaahi ak poroxaan am na ñu ne lu tollu juróom benn weer wala at mu manki tuuti la fa def am na ñu ne déedéet ñetti ñetti ati yàlla kay la def ci dëkk booba di poroxaan waaye daal li wér te wér mooy xeex bi ci mois de juin ci atum 1865 la tàmbali soxna jaaratullaay ci atum 1866 bi la génn àdduna ñu jébbal ko boroomam ci dëkk boobu di poroxaan ci teewaayu ak njabootam ak Mamor Anta Sali Mbàkke mi mu àndaloon doon liggéeyal suñu borom ci wàllu kër dëkk boobu di poroxaan teñ denc fa kii di soxna Mariama Buso teñ gën koo xam ci soxna jaaratullaahi tur woowu di poroxaan mi ngi jóge ci dëkk bu mu dendal di kër googu nag la Mamor Anta Sali Mbàkke tudde poroxaan googu ci ginnaaw bu mu ñëwee ci dëkk boobu di Saalum la gor foofa sanc ko tudde ko poroxaan tukkulóor googu ñaari poroxaan yi goo ci taxaw di seen ga ca def foofu la soxna jaaratullaahi mi waajuru xaadim rasuul tëdd yal na yàlla yokk ay leeram te fay jëfam maam Mariama Buso ñu gën koo xam ci soxna jaaratullaahi bari na nag ay tur yu ñuy wooye ay turandoom ñu ràññee ci soxna jaara maam Mariama ñuy wooye Bousso am na ay turandoom yu ñuy wooye Maam Jaara am na ay turandoom yu ñuy wooye Soxna Jaara ak tur wi ko waajuram tuddee di Mariama am na ay turandoom itam yu ñuy wooye Soxna Mariama ak yeneen ak yeneen i tur yu ñuy wooye Soxna Jaaratullaahi bari na itam ci réew mi luñ ko tudde moom Soxna Jaaratullaahi moo xam école moo xam yeneen ak yeneen ak yuñ ko tudde ndax am yaakaar ci waajuru ku baax ki Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim moo tax ay turandoo am na ko ci wàllu gone ku yéeme la moom Soxna Jaaratullaahi ku sàmm amoon kilifteef la moom soxna jaaratullaahi ba tax na ci xuru mbàkke googu am na benn bis xiinu ngelaw wu metti ànd a taw amoon foofu ci xuru mbàkke mamor anta sali mbàkke doon wut lum tàkke sàkket yi daanu woon tourné yam ci soxna jaaratullaahi di ko wax ne ma mariama kaay téyel ma sàkket yi ma wuti lu ma ko takke taw bi ak ngelaw li mujj ëpp doole mamor anta sali mbàkke mu fattu ci néeg bi fàtte ne waxoon na soxna jaaratullaahi kaay téyel ma ma lu ma ko takke soxna moonte de bu ko fa bàyyi woon dem fatu ji bu ñu yeewoo Mamor Anta Sali du ko wax dara waaye ndigal moo ko téyeloo woon te ndigal bàyyiloowu ko ko kon képp kuy jigéen te safoo soxna jaaratullaahi war nga koo roy ci nangu ndigal ku bëggoon Mamor Anta Sali Mbàkke la ba tax na musta nangu lenn lu ko metti wala lenn lu mu bëgg te soxna jaaratullaahi saafarawu ko li jigéen ñépp di tiitaroo muy li ñu tudde ab armoire wala ab bibliothèque ci jamono jooju ak gaal moo ko remplacé woon soxna jaaratullaahi mbàkke soxla woon na kafe mu wër matt amu ko mu xaru gaalam ngir tàngalal ko kafe loolu itam jigéen ñi safoo soxna jaaratullaahi itam war nañ koo roy di xam ne lépp lu ñu am kañu yaakaar moo ko moom ba tey bëgg gum bëggoon Mamor Anta Sali Mbàkke ak képp ku nekk ak Mamor Anta Sali Mbàkke donga yi nekkoon ci daaray Mamor Anta Sali Mbàkke li ëpp ci boroom xam-xam yi wax nañ ne soxna jaara ku leen nawoon la te fonkoon leen ba tax na lu bare bare bari daawu leen ko defloo rahmatullahi moo aaye danañ añ ba suur te duñu dem yónneen kon na képp ku nekk ci kër gu ay donga nekk war ngaa bañ a fatt donga ye nag sonal leen ci yónnee saaga ngir roy soxna jaaratullaahi ci noonu mu nekke woon ak Mamor Anta Sali Mbàkke ak i dongaam nangu googu mu nangu woon ci ginnaaw Mamor Anta Sali Mbàkke ba musta nangu lenn lu ko metti wala lenn lu Mamor Anta Sali Mbàkke bëgg te soxna jaaratullaahi saafarawu ko loola itam tax na mu am lu ñépp bëgg te kenn am nag ci ëttub Mamor Anta Sali Mbàkke ba am kim am di xaadim rasuul di daj dëpp gi ak melokaan googu mu fa nekke woon ba donga ya képp ku xam Mamor Anta Sali Mbàkke xam soxna jaaratullaahi loolu itam tax na bindkat yi nekk ci yoonu murit wala ci àdduna bi kenn ku ne nag yaa ngi tàgg soxna jaaratullaahi ci jëf ju baax ak melokaan ju mu meloon ngir bëgg jigéen ñi nga xam ne nii dañoo safoo soxna jaaratullaahi wala ku leen wax ñu tuddal la soxna jaaratullaahi man caa roy kon li way di ko tagg ngir jikkoom kenn xamul na mu toll xam naa ku lim daa juum moo tax ñu wax na rek képp kuy bind kat bind nga ci soxna jaaratullaahi ngir way ko xanaa ñu jël xasida gi rek barkeelu ci ngir ñu tagg soxna jaaratullaahi xasida gi na ki ko bind ku teg bëtam ci soxna jaaratullaahi la ndax bi muy nekk ci daaray Mamor Anta Sali Mbàkke soxna jaaratullaahi ma nga fa moo tax ñu jël xasida gum tagg soxna jaaratullaahi ngir barkeelu ci ci soxna jaaratullaahi ñu koy wax sëriñ gi ku ñuy wax sëriñ ma sàmba bàcc anta ceebo mooy ki ko meññi sëriñ ma bàcc anta ceebo mi jàngal na mamor anta sali mbàkke moo tax sax sëriñ tuubaa seexul xaddiim dupee ko sëriñ ma sàmba mbàkke ngir dab ak bànneexam sëriñ ma sàmba bàcc anta ceebo moomu doomu sëriñ madun penda buya la sëriñ madun penda buya jóob doomu seex siidiyel moxtaar jóob la seex siidiyel moxtaar jóob nag moo sancoon kokki sëtam bii di sëriñ ma sàmba mareema jóob moo bind xasida gi tagg soxna jaaratullaahi xasida gi ngir barkeelu ci ci mbooleem ñi way soxna jaaratullaahi moom nag suñ boroom dafa dogal mu fekkanteeg soxna jaaratullaahi ci ëttub Mamor Anta Sali Mbàkke bi soxna jaaratullaahi di nekk ci ëttub Mamor Anta Sali Mbàkke moom ma ca daara jay jàng ci loxo Mamor Anta Sali Mbàkke sëriñ Masamba ma Jóob moomu ma ngay tàmbali ci xasida gi muy tagg soxna jaaratullaahi ginnaaw bu mu nuyoo ci xasida gi wax fi mu cosaanoo ci ay waajuram ba ci ay maamam sant suñ boroom la def ci tàmbali xasida gi boole ko di ko gërëm ci moom mi def lislaam mu nekk lu baax ma ngay delluwaat nag di santaat suñu boroom moom mi def ak kéefër akuk réer mu nekk ak pertement akuk ñàkk ba tey ma ngay ñaanal ngeen gi mbindeef sallallahu taala alayhi wa sallam ak ay sahabaam yi ko doon gunge ci liggéey bi ginnaaw sahaba yi nag ñi nga xam ne ni ñoom ñoo yor ndono lislaam li di ko sàmm muy gaay yu baax yi ñoom ci mu ngi leen di ñaanal ak mucc nee na daal feeg lislaam mi ngi sax mi ngi ñaan ci darajay lislaam jooju suñu borom di yokk leeru yonent bi ginnaaw ñaan yu am solo yooyu mu wax nag ma ngay wax nag lan moo tax tax mu fas yéenee way xasida googu mu ne ku ñuy wax soxna jaaratullaahi lay way mu nekk nag ku tabe nee na kooku muy way ba tey boo ko xamul ku tedd la fu baax a baax itam la bokk ñoo xam ne nii itam ay sëriif lañ ndax boo toppee càllalaam ci sutub yonent bii di Hasan fa lay jëm kooku muy waaj a way ku ñu toppoon la ku fonkoon boroom këram la mu ne ki muy waaj a way ba tey te musta def lenn lu yàlla gërëmul ku fonkoon doomu aadama la moom jëmm ji muy way nekkul woon xeeb doomu aadama dagg itam diggante képp koo xam ne nii wax nga daal laneen lu bokkut ak moom lii mu wax ci soxna jaaratullaahi la ngay wax dara wéru ca yitte ju waay masaa am itam soo ñëwee alalu soxna jaara du la booleeg moom ku masaa xiif ba ñëw ci moom itam mu jox la nga lekk ba suur képp ku masaa maritim boo ñëwee ci moom mu jox la nga naan ba màndi képp kuy roy daal ku egg ci suñu borom bay boo nga seeti soxna jaaratullaahi mu ne bari woon na ñoo xam ne ni dañoo ñëwoon ci ëttub Maam Mor Mbàkke doon sàkku si xam-xam waaye bañ fa dajeeg soxna jaaratullaahi ba ñu ñibbee dañoo mujj jekk bari am am barit lii di xam-xam ndax melokaan wi soxna jaaratullaahi meloon mu ne nag képp ku jóge ci daaray Mamor Anta Sali boobu ba muy ñëw xamul dara ñaari bu ñibbee dana dem ba mel ne Saxbaar Saxbaar nag ci naari wala ci istuwaaru naari ku bari woon xam-xam la te làmmiñ wa leer te neexoon baat mu ne ñaare ku jànge ci daaray Mamor Anta Sali soo ñibbee da mel na kooka moom daal tagg yu yaatoo yaatu la def ci soxna jaar xadratullaahi waaye li am solo ba am solo mooy bi muy tëj xasida gi ma ngay wax ne danañ dem ba jëmmi jamono duutuñu tudd kenn te tudduñu soxna jaaratullaahi ak doomam ji mu ne su boobaa nag ñu demee ba doomam ji màgg te du kenn ku dul xaadim rasuul mu ne danañ dem ba jëmmi jamono mbooleem réew yi ak dëkk yi danga dégg turu soxna jaaratullaahi ba mu fay jolli ak doomam ji di xaadim rasuul te bu boobaa nag du kenn ku ko du def lu dul gor yi kon mu mel bindoon xasida gi te nekkoon ci ëttub soxna jaaratullaahi wala mu fekkanteeg soxna jaaratullaahi ci ëttub Mamor Anta Sali Mbàkke bi ñu teewlu xasida gim defoon ci soxna jaaratullaahi bismillahi rahmaani rahim qaala astahidu masamba mariama ibnu masamba anta jeebu ibnu madun pend bu yo ibnu sexsiril muxtaar fi marsi sayidatina mariama jaaratullaahi radiallahu taala anhuma wa nafaana bi barakatihima amin sallallahu ala sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman hamdan liman jaala al islaama wujdaana wal kufra wal jahla xusraanan wa fuqdaana aska zalaati ila an mas والسلام على محمد سار من لله قد دانا والآل والصحب والقافين ملته ما نورت ملة الإسلام بلدانا وبعد فالقصد بالمنصوب مدحتنا لسمحة سميت بجارة الآن أسيلة وتنا شريفة نسبا كريمة حسبا تفضيلها بانا مطيعة ربها وسيق سيدها ardathu afaaluha lillahi idmana walam tuhin ahadan walam tushin abadan walam tubin amanan man aamaha maana man xaawalu xaajatan fi mulkiha wajadu nujhal xawaaiji laa yalqawna xirmaana man ayyabuuha bila qawlin wala amalin yuzra alayha fa kaana allahu dayyana in zaaraha jaaicun aw zaaraha damiun saara bima cindaha shabcaana rayyaana yaa taaliban naailan fasal البجارة ناء وانظر بها تلخ إحدى إحسانا فإحسانا كم مستعين أتاها وهي تنجده فارتد ينجد إنسانا فإنسانا وكم بليد أتى للعلم سيدها فارتد يعلم صحبان ابن صحبان وكم حرائر اللات خملن فلا يسكرن من ذكرها إذ قوسها بان أما البلاد جميعا مدح جارتنا فالله يملكها يمنا وإيانا أما أبوها أخوها خالها فهم خير المشاهد المشايخ أخلاقا وأديانا ومن أسرارها في القصيدة تضمن حروف المعجم كلها وتكررها إلا حرفي القوس والسلام sëriñ Masamba Mariama Diop moom bindoon wala fal googu ci soxna jaaratullaahi moom tim ñu ngi koy ñaanal suñ borom yokk ay leeram te taas ñu ci barke moom sëriñ Masamba Mariama Diop moom ci ñi ko xamul bu baaxa a baax doomu sëriñ Masamba Bàcc Anta Ceebo la bu kokki sëriñ Masamba Bàcc Anta Ceebo muy waajuróom moom la sëriñ Tubaa Seexul Xaddiim duppee Cheikh Masamba Mbàkke moom sëriñ Masamba Bàcc Anta Ceeba moomu nag jàngal na Mamor Anta Sali Mbàkke sëriñ Masamba Bàcc Anta Ceeba moomu nag moo meññ sëriñ Masamba Mareema Jóob mii bind xasida gi ci soxna jaaratullaahi ba tey sëriñ Masamba Mareema Jóob mii bind xasida gi ci soxna jaaratullaahi ba tey ci ñi ko xamul bu baax a baax itam moo meññi maamu Cheikh Murtada Mbàkke ibnu Xaadimu Rasuul ba tey sëriñ ma Masamba Mareema Jóob ci ñi ko xamul moom it sahid la ndax ci biir lislaam lañ ko reye ndax soldaaru seexu ahmadu bàyyi ñoomit ñoom ñoo ko rey ndax bi ñuy tasaare lii di yoonu tiijaan biñ ñëwee ba fekk ko foofu mu nekkoon di jàngale alxuraan ci waxtaan wi ñu doon def ak moom la ñu juboowul booba nag moom mi ngi ko fekkoon mu nekk ci tariixa bii ñu tuddee alxaadiriya ci waxtaan woowu ñu doon def ak moom na ngir bëgg koo indi ci tariixa tijaaniya la ñu juboowul ñu mujj ko faat waxtu yoor yoor woowee ñu ko reyoon dem ba ko fa bañ demee ba seeni yitte mat bañ dëppaatee ci tàkkusaan gi lañ ko fekkaat foofu ñu tuxuwul ginnaaw buñ jëlee niiw bi nag la kerug yoor yoor gi doog a tuxu kerug tàkkusaan gi ñëw ñu doog a xam ne ñoom def nañ gaaf ndax kii ñu jël bakkanam tuutul ci suñu boroom moom moomu di sëriñ Masamba ma Jóob nag moo bind xasida googu ñu leen doon jàngal ci soxna jaaratullaahi moom gis na soxna jaaratullaahi ndax bi muy nekk ci ëttub Mamor Anta Sali Mbàkke di jàng boobu soxna jaaratullaahi ma nga fa moom sëriñ ma Marema Jóob ma nettali mu di ko wax ne laahi am na benn bis soxna jaaratullaahi rooti ca teen ba ba yanu di ñëw mu dajeeg moom fel la soxna jaaratullaahi yanu woon waaye bënd gi ni soxna jaaratullaahi waxut ak moom niw ko lu tax nga tuur li ma yanu wuxu ko dara daa dëppaat delluwaat ca teen ba rooti taxul itam mu mere ko benn yoon mu ne da doon natt soxna jaaratullaahi ba xam li ñuy wax ci moom wér na waaw wala déet waaye jaar na fii soxna jaaratullaahi moom nag moo nettali ku nettali ku ma ñetti li ne def na lii ak soxna jaaratullaahi te ku gis fi mu mujjee nga xam ne nituk suñu boroom la yàlla na ko yàlla fay ci darajey sëtam bi di cheikh murtada mbàkke ndax lépp mu ñu waxoon ci soxna jaaratullaahi teg nañ ci bëta bam koy wax dara xewagul ba tey ci jëfi soxna jaaratullaahi ñu man cee ràññee bi doomam ji demee ci géej gi di sëriñ tuuba seexul xaddim wala laataa muy dem ci géej gi bi sëriñ tuuba seexul xaddim tollee ci dëkk bi di fa fekk di ko wax ne na nga gën a góor góorlu te fas jom ndax li nga bëgg yombul ba tey bi sëriñ tubaa seexul xaddim nekkee ci réew moom di gabon te tubaab bi gasoon am pax taal fa ab taal tàbbal ci ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim soxna jaaratullaahi moo ko jëlee ca kàmb googu di ko wax ne damal wéel sab liggéey ndax mbooloo mi la yaakaar bari na lii ñu leen wax nag su ngeen demee ci jazaawu sakoor bi sëriñ tubaa seexul xaddim bind daa ko fa àdduna te sëriñ tuuba seexul xaddim sàkku woon ci sëriñ mbàkke buso mu dem taxawu ko ci dëkk bu sell bii di tuuba ginnaaw bu sëriñ mbàkke buso jógee tuuba delluwaat njaareem doon yëgal ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddim ne ko lang ma waxoon ci sëriñ jéeri waa daan sugu def naa ko sëriñ tuuba seexul xaddim laaj na sëriñ mbàkke buso ba xam gis na fa bàjjanam di soxna jaaratullaahi sëriñ mbàkke buso di ko wax ne ko déedéet mu ne ko axakay sa bàjjan soxna jaaratullaahi ma nga woon waa daan sugu doom ju jigéen ju masaa am soxna jaaratullaahi la koy tuddee kon képp ku am doom tudde ko soxna jaaratullaahi bay boo nga am yaakaar képp kuy turandoo soxna jaaratullaahi tim war ngaa góor góorgóorlu ba yenn yi kenn du la ci dégg melokaan googu mu meloon ba képp kuy bind kat sawara bind ci soxna jaaratullaahi ngir seede jikkoom tax na itim képp ku am doom bëgg ko koo tudde ba tax na li ma am ci ay turandoo kenn xamul num toll moom jëmm jooju di soxna jaaratullaahi ay daayira itim lim ci am macha allah ndax daayira yi teg ci biir réew mi ak bitim réew daayira biñ ko njëkk a taxawal te ñu tudde ko daayira soxna jaaratullaahi ku ñuy wax àlla seen moo ko taxawaloon àlla seen nag ci ñi ko xamul bu baax a baax àlla seen moo taxawal usine biñ tuddee usine glace ci Touba àlla seen moomu nag moo njëkk a taxawal daayira soxna jaaratullaahi àlla yàlla na la yàlla fay maam Mariama Bousso ñu gën koo xam ci soxna jaaratullaahi mi ngi génn àdduna ci atum 1866 ci dëkk boobu di Poroxaan ci woote bu màbba woote anta sali mi àndoon ak soxna jaaratullaahi wuy si ci diggante boobu ñu def poroxaan nag ci la soxna jaaratullaahi génn àdduna ñu denc ko ci dëkk boobu di poroxaan te Mamor anta sali mbàkke sancoon ko di poroxaan mbàkke ay atam tolloon ci fanweeri at ak ñett ndax ci atum 1863 ba atum 1866 fanweeri at ak ñett la booba doomam ji di xaadim rasuul mi ngi am fukki at ak ñeent wala gën ngaa bari fukki at ak juróom waaye ginnaaw bi nag ci dëkk boobu di poroxaan toogaat nañ fa ab diggante doog fa jóge nag ngir dellusiwaat nag ci suuf si di kajoor ndax Lat Joor la Mamor Anta Sali Mbàkke àndaloon soo demee fi ñu denc sëriñ Moor Faati Ture muy ci màddina Ture am na ab risaala bu fa seexul xaddim bind te ca biir risaala ba seexul xaddim bi mu koy tëj mi ngi wax ne ku ñuy wax Ahmadu Bamba Sàll moo ko bind ci dëkk bu boobu nag suuf soos fa nekk moo tudd rip moo tax ñuy wax ñooro de moo tax seexul xaddiim ne ci suuf suñuy wax rip ndax bawal gi ñu nekk suuf si moo tudd bawal moo tax ñuy wax mbàkke bawal ay atam toll ci ñaar fukki at loolu la seexul xaddiim bind ca risaala ba ba mu koy tëj mu nekk ab signature am te bi soxna jaara di génn àdduna seexul xaddiim amagul ñaar fukki at kon toogaat na foofu ci diggante ba ndax risaala ba seede la ca risaala ba nag ku ci am sikki sàkk soo demee fiñ denc sëriñ Mor Faati Touré ci Madina Touré daa ko fa fekk seexul xaddiim moo ko ko joxoon moo tax ñoo bokk fu ñu tëddaale seexul xaddiim yàll ñu ko yàlla fayal soxna jaara yal na yàlla yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem ndonal soxna jaaratullaahi njabootuk cheikh mamadul basiir mbàkke ñooy ñi koy sàmm ginnaaw seen waajur wa sëriñ tuuba seexul xaddiim ba ci atu 1968 cheikh mamadul basiir mbàkke moo yore ndonal soxna jaaratullaahi ci atum 1968 ba atum 2007 sëriñ mustapha mbàkke bachir moo yore ndonal soxna jaaratullaahi jaaratullaahi 2007 ba nëga ne sëriñ Muntaxa Mbàkke moo yore ndonal soxna jaaratullaahi jabootu Cheikh Mamadul Bachir yal na leen yàlla fay ci seen ndonal maam loolu ñuy sàmm te fayaale bépp turandoo soxna jaaratullaahi ak soppeem ndonal soxna jaaratullaahi nag li tax mu nekk ci njabootu Cheikh Mamadul Bachir Mbàkke sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim moo féetale woon Cheikh Mamadul Bachir Mbàkke lii di Saalum ba taxoon na ci nekkiinu ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim amoon na tournée bu yaatoo yaatu bu mu daa def ci Saalum ngir seeti taalibe yooyu nekk ci saalum ndax kat foofu la ko seexul xaddiim dëeloon moo taxoon sax mu sancoon ay quartier ci dëkk boobu di kaw Kaolack lu mel ne Touba Bustaan ak Touba Ndorong tournée yooyu nag bàyyiwu ko ba ci atum 1930 ci atum 1930 nag la Cheikh Mamadul Bachir njëkk a dem poro Poroxaan ci 1930 boobu itam keroog bañ fay dem yoon wa metti na lool ndax ñetti doomu aadama la àndaloon ca yoon wa ñu ràññee ci ku ñuy wax sëriñ Muudu Laam sëriñ Mbay Laam ak ku ñuy wax Baay Mahmoud Diané ak moom Cheikh Mamadou Bachir ñuy ñeent Baye Mahmoud Diané mii nag ba nëga mi ngi daaru Minam ku dem daaru Minam ci kër sëriñ Abdul Akim Mbàkke moom ma Cheikh dul Bachir Mbàkke daa fa fekk Baye Mahmoud Diané yal na suñ borom sàmmunta taxawu te may la wérgu yaram te guddal fan wi ci atum bi biñ demee Poroxaan ñoom ñeent ñooñu ñooy ña fa àndoon waxtu ngoon lañu egg ci dëkk boobu di Poroxaan fa leen reer itam fekk Baye Mahmoud Diané mii moo jógewaat Poroxaan ñëw delluwaat ci dëkk boobu di ñooro si lu ñu reere cheikh mamadul basir nag wéyoon na di fa dem aka demaat at yu néew nag lañ ca teg ñu tàmbalee màggal nag ci dëkk boobu di poroxaan aw bëy lañ fa njëkk a rey ci màggalu poroxaan waa poroxaan tukkulóor googu nga xam ne nii ñoom ñooy dëkkandooy poroxaan ñoom ñoo toggoon gàtt ba ci teewaayu cheikh mamadul basir mbàkke ibnu sëriñ tuuba seexul xadim mi sa tub soxna jaaratullaahi ñu wéy nag di ko màggal ci dëkk boobu di poroxaan ci weer wii di weeru rajab lañ daa màggal bu njëkk nag lii di màgg màggalu poroxaan ku ñuy wax sëriñ Babacar Jabbu bokk bokkoon ci mag ñi sëriñ tuuba seexul xaddim boole woon ak ma mamadul basir foofu ci saalum moo sàkku woon ci cheikh mamadul basir mbàkke ngir màggaluk poroxaan googu nag ñu koy màggal ci weeru rajab ndax weeru rajab woowu kon ñoom saalum saalum yi ci lañ daa ëpp nag lii di jot sëriñ babacar jëbbu muy sàkku woon ci ma mamadul basir ngir ñuy màggal màggaluk poroxaan ci weeru kazu rajab ci dëkk bii di ñooro la dëkkoon cheikh mamadul basir itim fekk si woon na ko ci bëgg-bëggam boobu ñu daa màggal màggaluk poroxaan ci weeru rajab màggal googu nag màggal nañ ko ay ati ati at ci weer woowu di màggalu soxna jaara googu cheikh mamadul basiir itam daawul def at mu jot mu fekk si màggal gi léeg-léeg nag daana fekk si màggal gi léeg-léeg du ñëw waaye ci diirug dundam nekkul at mu jot mu fekk si màggal gi waaye ci atum 1952 ba atum 1966 ci weer woowu di weeru rajab lañ daa màggal màggalu poroxaan ci atum 1966 nag la fi cheikh mamadul basiir mbàkke bàyyi ko ca 31 juillet ba at moomu sëriñ Moustapha Mbacke Basiiru wuutu ko màggal ga itam wéyal nañ ko ci bis boobu ci nekkeenu nekkinu cheikh Mamadul Moustapha Mbacke Basiiru ay ati ati at yi at ci xalifak cheikh Mamadul Moustapha Mbacke Basiiru waaye ginnaaw bi nag la sëriñ Moustapha Mbacke Basiiru wax ne màggalu soxna jaarakat murid yépp ñoo ko bokk waaye weer wow nag di weeru rajab tim day tombeeg mu nekk nag ci ab nawet te màggal gi murid yépp dañ cee war a ñëw lool nag moom moo waral nag ñu ko ci weer wow nag di weeru rajab bi nag ci weer wow wutalu ko nag wenn weer nag wuñ koy màggalal heure bu murit yi jekkoo ngir mën a dem poroxaan ñu jàpp bis nag bu murid yi dem poroxaan ngir màggal màggaluk soxna jaaratullaahi gi ci noonu nag la ko sëriñ Moustapha Bassirou indi ci noonu itam ni la ko yore ba nim fi bàyyi ko ci atum 2007 rakkam jiitim ko wuutu ci xilaaf ak Cheikh Mamadul Bassir yor ndonal soxna jaara itam di sëriñ Muntaxa Mbàkke Bassirou itam ci yéene joojee ko magam ja bàyyi woon di sëriñ Moustapha Mbàkke Bassirou itam moom itam ci la ko bàyyi heure bu ko muridi jekkoo mu woote poroxaan ngir ñu dem fàttaliku soxna jaaratullaahi yàlla na leen yàlla fay ñoom njabootu mu dul bachir ak bépp soppeb soxna jaaratullaahi maam bu sa moom ñu gën koo xam ci soxna jaaratullaahi liñ jot a xam ci ay daayira yu bindu ci commission bi nga xam ne nii njabootu cheikh mamadul bachir ñooy ñi ko sàmm ñaari junniy daayira la ak juróom ñetti téeméer yu teg tuuti li ko dalee nag ci atum 1958 ba at mii ñuy waxeeg 2005 la sëtam ba sëriñ Moustapha Mbàkke Basiiru tabax nag daaray soxna jaaratullaahi ci dëkk boobu di poroxaan ña fay jànge nag di ay turandoom kese di ay soxna jaaratullaahi soxna jaaratullaahi yooyu itam seenub lim juróomi téeméeri soxna jaara ak juróom benn fukk ak ñaar ñoo fa nekkoon daaw te fa yéene nañoo mokkal alxuraanul karim sëriñ Moustapha Basiiru itam yàlla na ko yàlla fay ci turandooy soxna jaara yooyu mu fas yéene ñu mokkal alxuraan ñuy ñaan Xaadim ak Maam Moor Jaara maamu cheikh Muhammadul Bachir Mbàkke yàlla nañu ko yàlla fayal te yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem lii di jafe-jafe